maa ngi lay ziar. delloo ziar bu wér kay. bandi 40 ans. waaw mais lu ko waral bandi 40 ans. tur bi bàyyi beneen yoon baal ma ko beneen yoon incha allah. ayil ma ne baal ma ko beneen yoon incha allah. baal la ko ba beneen yoon. incha allah ñu gis la ñu gis la ci ko ci làmb mbapat. combat bi euh, mën naa ne Joal la taxawee. sa diggante ak ki nga xamante ne bii moom mooy euh, El bi nga dajee ci final ba. waaw waaw waaw. Pape Thialis lam la waxoon def ko lan nga lan lan ngay wax. dégguma Pape Thialis la waxoon def na ko lan ngay wax. non def na ko maa ngi koy gërëm bu baax a baax parce que góor ca wax ja rek la mu waxoon jëfe na ko waaw. ki nga war a bëreel xam nga ko. non non xaw ma ko. xamoo ko soo koo gis. mosuma koo gis xaw ma ko. la koy wax. dara di ko ñaanal yàlla jàmm rek ba bés ba rek xaw ma dara lu ma wax ak moom à part di ko ñaanal yàlla rek ba bés ba incha allah. ñu gis ne mbapat mbapat yi wane nga ci sa bopp arène bi lan nga ci fas yéene def. waaw euh, comme dab rek nara woon na sama bopp si arène bi rek def loo xam ne tamit defuma ko si mbapat wax dëgg yàlla loolu laay ñaan si arène bi quoi waaw. bandi 40 ans tur wi wuyu wuyu ji wuyu jikko ji nga nekk bandi ci làmb lool lu ko waral. non est-ce que gars tamit bandi nekk. seetaan naa la seetaan naa la fukki yoon ak juróom-ñeent. ay tooñ la rek bandi. non non ko sax. non jegewu ko sax. lay <laughs> wax supporter yi ak amateur. waaw di leen gërëm bu baax a baax ñoom ñëpp bàyyiwuma kenn képp koo xam ne fan si club Bandit 40 ans nga di amateuru làmb rek. waaw di leen ñaanal jàmm ñoom ñëpp ba bés ba incha allah ku si nekk ñëw soutenir ma si barke alxuraan loolu laa leen di ñaanal. jaajëf mbër. ok jàmm yàgg. amiin yàlla. mooy bato kew. <laughs> bato kew wala bato suuf wala bato béton. ah Mansour wala bato ceeb. bato ceeb ah man nag damaa xamul bato bi. bande 40 la war a bëreel damaa xamul bato bi day ro day day jël bande bi yóbbaale ko wala wala bande bi day suruxal bato bi loolu nag le 19 lay leer Baye Fall ziar naan. waaw salaamaaleykum gannaaw ma sant yàlla julli si yonent bi san sama ñaari waajur sant sama sëriñ Mouhamadou Lamine saama sa bu baax. ñaanal suma yaay yàlla may ko gudd fan ak wér ba mu fekkee sama njëriñ ñaanal sama papa fu mu tëdd yàlla xaare ko ajana ak mboolem julit di sant sama waa dëkk nag waa Fuuta gi yëpp bàyyi ma kenn lu dal waa fan waa Fuuta man Fuutanke laa Fuutanke baa ngi nii ñi doon woote ay Fuutanke yëpp ñëpp dañuy xaar Fuutanke baa ngi nii mhm. man njum laa dëkk diggante laaw ba boosee maa ko moom alpulaar buy bëri yaa ngi dégg miin comme bii xaal pulaar comme saraxulle a faami loo bokk ak xëy na ñoo bokk Fuuta rek waaw maa ngi koy jaajëfal moom tam garant bu baax la di jaajëfal tam mbëri Fuuta yi jaar fii ñu mel ni sama grand Ousmane Toucouleur ak ku si mel ni sama grand Moussa Mbarodi. maa nga nga war a bëre ak bandi 40 ans est ce que xam nga ki ngay bëre. waaw loolu bandi ba ma koy xam loolu yàgg na. ah xam nga billaahi ba ma koy xam yàgg na. xam nga ne muy bëri. waaw lu leer bandi jàpp defeere rek nekk sama diggante ak moom. jàpp defeere. billaahi loolu kese nag sama diggante ak moom. le 19 le 19 décembre. bu soobee yàlla su ma la ne woon loo koy yóbbante loo may wax. waaw man daal bandi li mu koy wax bariwul li mu koy wax bariwul làmb ji yàlla na ko yàlla may talak fekkee yaa ngi dégg mu ñëw bis ba mu taxaw seetaan ma arbitre siffle sama digg ma jàpp ko daan ko jël bu yomb ma ñibbi. mu taxaw seetaan waaw bëgg nga lu yomb. billaahi non day def rendez-vous le 19. le bu soobee yàlla waaw.